yow ma wax léegi ku ne xam ne ni xare bu metti la boo xam ne dafa amoon ci jullit ñi sax ñoo xam ne mu gën daw te Sëriñ Tuubaa nee na képp ko ne ko fekkee waaye boo ko ci nelaw fekk bokk nga ci ñi dundal guddi alaykum al-ardu bimaa kasabat summa wallaytum mudbirin kon ñu fas yéene teewul baax damaa jëlee ñi jàng fas yéene ak ñiy toog di tudd waaye sëriñ bi nee fa sur bil mu tax na ni yàqu fa kay nii nga xam ne moom la ñu teg ñiy jàng xasida bu ñu ca tilee nee na ku ca naan suñu borom dëgg la musal ci sawara suñu borom dëgg la musal ci iblis te itam képp koo xam ne yàlla na dundal ihyaa mawlidil basiir danaa sàmmal boppam la sa njaboot yokk say xéwal kon nag ci barke guddi gi nga xam ni ñun jullit yëpp maase ngeen ni réew mii ay jafe-jafe am na fi wala réew mi metti na bépp taalib fi nekk wala day taalib Sëñ Tuubaa nag ci fas ci barke guddi gi suma borom mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci réew mi suñu borom jëlee ko ndax bu ngeen ko ndax ku ngeen toll waaye naa nekk ni ak nii mooy gën a naqari ci at yi waaye mën na nekk ak bu kon nag képp ku fi teew. nanga nga suñu borom ci guddi gi nooy def nga fas ko ak murid lu muy def te fasu ca jëf ji day mel ni ak nen kon képp kuy def wala ngay jàng na ci fas la nga bëgg waaye fas yi taw fee fas ci mucc yàlla na ko yàlla defal ci barke Sëriñ Tuuba kon ñu fas yi ne tàmbali liggéey bi comme nañu ko daan defee incha allahu taala الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ إلا باسم الصاد العلي مستدرك خير البركة على ما أنال مولاه وأثني بمحمد موالده زائدة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتخب في القرى الكريمة والجبال واستفتح الله لدوام يقص العدلة الظاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه وأستديه هدية لسلوك السبل الواضحة الجليلة وعفسا من الغاية في قطرة الخطايا والخطأ وأنصر من قصة المولد النبي الشريف برودا حسنا عقليا ناسما من النسب الشريف حقا تتحلص تتعلم مطالب الهلال وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله kon borom téere bi dafa tàmbali ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ci saxaaba yi ñaanal moo leen dul yëpp jàmm ak tawfeex ak xéwal mu mu sant yàlla mu sant ay mayam fépp fu ab jullit mën a nekk ci barke guddi bi tamit yi mu sant yooyu fas yéene naa leen nett yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak gane àddina ba ngeen làqoo kon ñu def salaatu bi عطر اللهم روضه الكريم بعرش سسيم من صلاة وتسليم عطر اللهم روضه الكريم بعرش سسيم من صلاة وتسليم عطر اللهم واقترب اللهم روضه الكريم وعافه بسخفه من صلاة وتسليم عبد اللهم روضه الكريم بعدل سبيل من صلاة وتسليم عبد اللهم روضه الكريم بعدل سبيل من صلاة وتسليم عبد اللهم روضه الكريم بعدل سبيل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله يا رب